sallallahu ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaxluqu waaye dana bind saa saa sallam yooyu rek ngeen xam waaye yàlla dana bind yeneen war waaye ngeen xamu de loolu feeñ na léegi ci saxaar jéeri yi amee saxaari ndox yeeg automobile yeeg ak avion yi yonent bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na junne ci mbindeef juróom benn téeméer yëpp ñu ngi dëkk ci géej ñeent téeméer yi ci def ñoo dëkk ci jéeri yàlla am na ñett fukki mbindeef yoo xam ne bu ci nekk faatu naag bu ci jiwal ay nit lañ yoo xam ne dañuy denc ci jur xamuñ sax ne kenn dana mooy yàlla ñu ne yonent ndax ci doomi aadama lañ bokk mu ne xamuñu sax ne yàlla bind na Adama ci biir ba ko yàlla bindee ba tey ñu ngi tiim génn géej saa su ne la muy ca géej ga ci génn taxaw ci génn tamit bëgg ay dundam lépp luñ ko toq ci ndox rek yàlla bind ca ay mbindeef moo tax ne yàlla am ci mbindeef kan xamul nañ day te yéen su yore ñaanee te jàll asamaan yi juróom yaara suuf juróom yaara yaara sa tur la romb naa alam boo xam ne dafa see ñaan yooyu rek ci yooyu rek mu ne ci suuf mu ne ci yooyu boobu ba tey ana suñ jógee suñ jëm ci dégg ko ba ma yàlla bindee ba tey noonu laa leen gisee gis naa ñu ñëwee rek xaw ma suñ jëm xaw ma suñu bàyyi ko ba tey ñu may romb rek te jibi waxoon leen te saaru baraatum lim dund ci jàpp ba nga xam ne guddi gi feeñ ca gannaaw yi jaabu yi jaabu ñoram sel la juróom ñaar fukk bu ne at mu nekk mu feeñ benn yoon dana feeñ na fi kanam ñeenti téeméeri junne ci yoon booba tey ñun ñu ngi koy romb liggéey rek xamul suñu bàyyi ko xamul suñu jëm moo taxaw ma yàlla muy bina rabbika illaa huwa yàlla dana bind lu ngeen xamut yàlla dana bind lu ngeen xamut te dana bind ci xeetu yonente sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñoo xam ne ñu ñu ay yonent dañuy jàppee xam-xam lu jële ci yàlla ci lu waa dëgg de moo tax de yonent ba muy génn àddina mun mu jawax allahu xalifati fiikum def naa yàlla muy sama kuutal ci yéen soo gisal muy wutal yàlla ci ñun am na ne dana am ci ñun ay góor yoo xam ne danañ mën a jàpp xam-xam ci yàlla ci lu waa dëgg kooku mooy xaarisi ne ko dee fa ngi jàpp seen xam-xam ñu dee jëriñ ci ñu dee jëriñ ci ñu dee ari ñu yaa ngi jàpp seen xam-xam ci aji dund bi nga xam ne moom du dee mukk moom du dee mukk te ñoom duñu ay yonent waaye wàllu yoon yonent ñu wutale seen fan lii rek la xam yonent dafay indi sariyaat bu bees indi xatte bu bees mën a xaraamal mën a daganal wali yu amul loolu wali yu moom sariyaatu lim si fekk rek ci lay jàpp waaye mën da soppali sariyaatu bi waaye dana jàpp xam-xam ci yàlla seen duwaasitatu ci kaw nag sopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo xamee ne ëstu mooy xam-xam yooyu ñu ngi ko jàppee ci baatin wuute naag sariyaatu rek bu këstu saxee këstu saxee këstu bu wét bu selloo sariyaatu mukk sariyaatu du ko selloo ñooy daa ñooy d'accord ñooñu nga xam ne ñoo jàppe xam-xam ci yàlla ci lu waa dëgg du ñu ay yonent ñoom la yàlla wax ne yàlla dana bind lu ngeen xamut de sa arab yi xaati ñu ne naa benn masta ak ci mboolem ndam bi yàlla mu fay yooyu yëpp ñu daje ci benn fat ñu ko di toog ci suuf ñu ko benn ci duur boo xam ne xaaral ba mën naa jëlandoo yëpp ñu xaar yonent pour mu ñëw toog yonent ñëw toog ko fii ba moom rek ñu ci def ñëpp mu ne maa ngi xool yi waaye mu ngi toog ci suuf Moussa ne Imraan ngi toog ci suuf kon Mariama ngi toog ci suuf yonent rek a toog ci fii mu ne ma yéen magaay yonent bi su tax Ibrahima xam ne sax ci toog ci suuf aw yonent bi toog ci suuf yi mu ne yonent yàlla Huud moo wax ak man ci mbooloo ma mu ne ana ko su mbooloo mi daje ak jaawal mu feneen dañuy daje ne ko dañuy am xalaaj xalaaj benn ma jóg la woon koo xam ne dafa mën di woon ne anam xaq maa fi jubbati ila laa te maa yàlla te ñu sunu sama mbir ma yàlla koo dañuy rey ko kër gi ne yoon rey na ko ñu rey comme jeexee ak jotaay bi di am mat na ñett téeméeri at ak juróom-ñeent mat na ñaar téeméeri at ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent kon mat ñett téeméeri at bu ne ko xalaaj moom la ñuy romb xalaaj yu mu def xalaaj nekk ci yonent bi ci dundam comme jeexee ba tey yonent ba ko ñii bi moo tax boole yonent yëpp dañu day di ko romb pour yonent ba aar ko ana ak sa jëriñ ci lan la Allah dafa waxoon ci xolam kat waxu ko ci laa mu ñëw yonent daf ne sama moroomam jagle naa ko ñuy def bakkaat yu mag yi ci sama xeet Allah ne yonent bi ma xamoon ëpp ma xamoon foor bi ko yàlla may bu ko jëfoo woon kon dafay romb ñëpp ébar yi sax duñ lakk bon ci dara jaam xàggee foofu nag moom mooy yemale ko ci moykat yàlla yi ci kéem rëy ci dara jaam rëy am waxee loolu ci akaram rek yonentu seen te kon xaaral yi yéen waxu leen ne yàlla mooy lan yi nit di waxe ne aaka na su fekkee yàlla lan yi may waxe man am loo ma yedde ci wax joo xam ne wax naa ko te yàlla sama lan yi ma ko waxe ma laaj na ko tuub naa mu ne ko balaa maa nangu sa tuub ñu rey la ci jaas yi sa reyaat ko te ci def keroog la ne anal xaq maa su jubati la laa ñu rey ko boo ne booba ñu ko reyee ba léegi nag ci tegu sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñàkk sa gi boobu mu defal ci wàllam mu ne ma xame ca daal ma dag ma xama waajur yi lam bi yaaw mursalin yëpp dajeeg ngir moom kenn rek ñu gisee sa yonent ngir moom mu xam ne kooku ku for la xame ca yit ne ñàkk sa gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen man di ko waral sax loolu itam lu for la jiit na waa ji lu mat ñetti téeméeri at li tax ñu nekk liñ kaa ji nag mu ne yonent yàlla Muusaa ne yonent yaa wax ne xalamaa ummati ka ambiyaay bani Israël koo dee xeeti yonent ñu ngi mel ni yonent yonent bani Israël yonent ne ko waaw mu ne ko kan ci ñoom mu ne ko naka waa ji doxañ ko xasaat yi Muusaa ne ko ma laaj ko mu ne ko laaj ko Moussa laaj xasaar yi yenn laaj xasaar yi tontu ko fukki ton Moussa ne ko ah sa tontu li baaxul benn laaj benn tontu moom moom lañ ko war a benn laaj benn tontu la war a am waaye benn laaj tontu yu bari ñu jaaduwul mu ne ko lu tax nag bala yàlla waxee ne wa maa tiita biyaminika yaa Moussa kane hiya asaaya atawakkau alayha wastubiha ala qanami wa liya uxra yonent ne Moussa ne yonent wax na dëgg ko dee xeetam ñu ngi mel ni lambiyaaw bani Israël wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna maa moomu lu nekk xaj na ci rek wa ala laahi war na yàlla xasu sabili yoonu jub mu ne aaj na ci moom jaayru na aji jàng rek walaw saa doonte sooba na yàlla ak jub tëwoon daa daa suñu kon dee mu jubal leen xaj ma yeneen dañuy yeen ci mboole de su yàlla bëggoon ñëpp jub kon ñëpp jub di amul wax waaye nag bëgg doonu dafa bëgg ñenn ñu jub jafe ñenn ñu jubal de dafaari woo moom la ci maabur bi nga xam ne am solo wàcc na mu ne sama ci ci asamaan maanaam taw lakkum ñeel na leen mu ne jikko ci ndoxam taw saabu nag naan comme mu jikko ci moom te jarul dara ci suuf noonu la ngeen faral seen i daara fii ci moom de lim bi la nu saxal lakkum ñeel leen moom yàlla bii ci taw sarxa mbay wa saytoon ak saytoon wa naxiil ak sandarma wala ana baaki henab wa min kulli samaraati ak képp ci xeeti meññe di na fi daalika naka aju naka la ci doon ci doon aa tan aw ñëer aw ñëer dafa tëral ñu lañu xaram rek ba saxar sàggat na lakkum ñaa leen léegi guddi wa naar ak bëccëg ba xam sa jant wala xamar ak weer wala joomal bi diire su saxaraati ngir ñu doon sàggat di am réew ci kawam ina fi daalika naka aji naka la ci doole aa tin tak lay ci tak lay tak aw ñëer aw ñëer dañu ñu dañu tantal wa ma sa sàggat na mu ñaa leen la mu bind lakkum ñaa leen fi la regisu ci bind de muxtalifan bi ma aji wute aro al hoy merom ina fi daalika naka aji naka la ci doole aa tan tak ci tak lay tak xam nga daal di njëkk a toll nii danañ waaru wala moom buur allah jiri mooy buur bi nga xam ne saxara tàggat na mu albaxara géej yàllaa leen tàggatal géej ngeen di kawaar ci sukkuuf ci sàkkuloo ngir na ngeen lekk mu nu tukkee ci géej laa xaman yàpp pare yéen wu dee aji tooy yàllaa ngeen di wërsëgal yàpp wu tooy mu bàyyi ko ci géej ngeen di ko lekk mooy yàpp jën tudde na ko yàpp moo tax soxlawul rendi moo tax yonente ne yàlla daganal na yaari ñedd ci jëkk ba mooy jën bu ñaareel ba mooy njéeréer ndax soo ko yàlla tuddee yàpp rek nga xam ne moom soo rendee yàpp la su dee ba famille yàpp la rek daga naa lekk tariyam yàpp mu yaa ji tooy tax na de soo bëggee lekk jën lekkal ba muy tooy de bu woowee mën naa def jàngoro ci yaram mooy njëriñal tariyam yàlla na ne yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla daganal na ci sama xeet méddam ji ndoxam ji itam laa baraakoon la ñuy leen wata sax ñu wata ngeen jëndee ñu ngi tukkee ci céet ñu yetal sa kaay sal ba soona alal da ngeen war doo ko rek yàlla may na leen ngeen di génne ay xeeti jawar ak lu loolu ci marjaan ci géej ngeen di ko war doo mu ni sa kaay moo tax kafe yi daganal takk wurus ci góor yàlla ñaxe nañu ko te yàlla du ñaxe mukk lu xaraam maali xaraamal na ko ne xoddoo bi xoddaayal jigéen ñi la ci namm ndax sa jabar saamee takkaay bu ko takkee dañ koy bànneexu naka yow mu ko takkoon rek koo nag takk ci sa jabar takk takkaay bi rek mooy sa takkaay yow góor bi waaye taxul mu dagan ci góor wa taraa ji saa nga al furka gaal waaw keroog ñu doon xottu biir bi géej nga gis daal yaa ngi xottu biir bi di dem ñoom ñu jublu si ñoom ñu dëdd si te benn ngelaw leen di doxal li ca taxu am ngeen na ngeen sàkk ngeen fab yi ci yow la sàkk nga boo leen ak ngeen sant yàlla de yeneen bi tamit sa gis géej ak bëtam gerte sax ak suuf saxaar yi ci saxaar yi géej yi nga xam ne ñoom ñu dem ñu ngi wàññeeku ñuy daje lépp suuf ba diis yàlla mi leen tàggatal géej gi te saxaar yi di ci dox te duñ suuf ci sa sax yaa ngi koy teg ci géej mu suuf mën leen sant yàlla ci teew loolu te xam ne loolu bu ko def kenn la te mu it na te moom rek moo mat a jaamu rek waal xaa sànni nañu si dara ji suuf rawaasi waal xaa samp nañu si dara ji rawaasi ay bëj ñu samp ay bëj juróom benn téeméeri junni bëj yu mag xaaral ñoom ñoo téye suuf si bu ñu yëngatu am tamit ñu bu mu yëngu doon dugg moom yëngu de bu taxutoon ak dañuy suuf si yëngu suñu gaal yi yëngu doon bu nekkee ci kaw géej waan xaaram ñu bind ay yoon ñu ko mën a gis ra parce que bu la ci yoon la boo leen taxaw ñu ngi digg ñu sàkkal leen ay yoon yoo xam ne ndox mu neex la ngeen di ko naan juróomi yoon trois ak dij la ña nga général trois moo jóge Kousor dij la moo jóge Bagdad ñu ngi ma nga ca Misra ak fay xool ak jeexoon juróomi yoon yooyu ñu nga bëll ca aljanna ñëw ci àddina ñu ne Misra ne nañ ca te yoonam ne lem ma ca aljanna la jógee su taxu seen géej gi jaar kenn du ko mën a naan ak neex goosu waaye géej ak xorom gi jaar baax si moo tax neexaayam bi yem si ñu yem waaye ba tey moo tax ci loxo àddina yàlla mi leen jox yoon yooyu ngeen di naan wasu bu ak yoon la alaakum ndax la yéen tasa dana ngeen jub su sakkal leen ay yoon yoo xam ne ñu nga jëm ci dëkk bi ngeen jublu amul dëkk booy dem te gis la yoon wi jëm yoon yooyu yéen a ko tëral yàlla tëral yoon yooyu ndax juba leen ngeen jëm ci seen i maqasit alaamaatin mu def ay mandarga ci yoon yi mu tuddal yéen yoon yi wowum te ñoom yax te dana danañ jubbi nañu ci biddiw naka noonu itam ñaam xam-xam ci biddiw mën nañ caa jugee te xam xibla xam ci biddi toll dafa mën yàq la ko ko danañu jënd yëf yële te moo di yàlla te man laa wax bu nasar te bind jiw la ki nga xam ne moo bind ñii mën nañ ko yemale koo xam ne bindu dara lu tax ngeen di ko sakkal bokkale nag ci jaamu après te sa koroon tere ngeen waa du nga gëm dañ sax doo te walaay ndem mbir ngeen ñaamata laay xéewal yàlla ak soo xel xam ne te li leen yàlla jox ci xéewal ngeen ko bëggoon a wàññi ngeen ko mën a wàññi rek wala mën la ko wàññi nag naka lay mën a joxe cant ka rek ne laa naka yàlla a tey ma yéexal na mu leen kenn nit ñi ñëw na ci benn wàll ñu ko tawatul ñàkk mu ne ko waaye santal yàlla mu ne sant yàlla dara laa am mu ne ko waaye santal yàlla laa wax mu ne ko man xaw ma dara benn benn buree daal amul mu ne ko santal yàlla li nga am mu ne xaw ma dara mu ne ko nag nga ma def sa loxo lay yor jox la ci biir yi mu door loxo càmmoñ nag déedéet te tànku day yor déedéet tànku càmmoñ déedéet ma lukki sa bëtam day yor jox la ci biir mu ne déedéet mu ne ko yaa ngi am wóor-wóor marti yi loo xam ne ñëw ci biir yi mu door ci taxawaay nu mu wóor bëgg ba noppi di wax ne amuloo dara yàlla ne su ngeen bëggee compter di leen jox ci teewal su ngeen ko mën a compter mukk waxatuma nag ngeen di ko sant inna allah naka yàlla la xafurun aji baal la mu ñaar ay xejam ànd ak lott gi lott ci sant ko yëpp baal na leen fay mun aji yërëm la ànd ak mooy ñeen fay mooy yëpp terewul moom mu ngi leen di yërëm de wallaahu yàlla yàlla mu dara mu xam maa ko fi woon la da ngeen nëbb ko maa ko li naa la da ngeen feeñal ko wala si na ñaañe tadoona da ngeen jaamu leen mu doon laay lu yàlla ki xërëm yi saa yox la ko na bind ci seen dara om te ñoom yox la ko na def na sat leen de seen yàlla yooyu ngeen di jaamu binduñ dara de te ñoom ay nataal lañ rek yoo xam ne yéen yéen a yet dañu yett ci dañu ba mu rafet rek ñu sant kenn yàlla nga yett ci sant yi ba mu rafet rek ñu sant tabax istati ba mu rafet ñu sol mant rek yét baa ci ingis dana yàlla nga am waatun ay ñii lañu xamuñu roxo xayru ayaa in bu ñu way dund commencé solo na xamuñu ayaa nañu war solo waxtu wa def na rek leen de ñoom ay jamaan lañ xamuñ suuf xamuñ sax lu xew su yàlla rey mbir yi ñoom duñ ko yëg su yàlla dekkal mbir yi ñoom duñ ko yëg kon kay ana ñu doy yàlla yàlla ji kay ana mooy ci bind tey bind te xam lu nekk lu teew lu fàddu du ko ko war a doy yàlla ilaahukum yàlla seen ilaahum yàlla la mu waaye ci kenn yàlla ji jaamu kenn la amul njàll ci jëmam amul njàll ci nelawam amul njàll ci jëfam te kooku mooy yàlla ku jaamu ku ko mooy da ngaa réer alla si na ñooñe laa yow mën a gëm ñu julaaxira bi jaalaaxira xololuum ay xol seen mun ci rek wooye wet lañu wéet ak yàlla boobu te ñoom laa jarama dëgg noonu laa naka yàlla te bu gërëm xanaa ci wama yoon xara sunte tay ina war naka moom ko tay bi mu yoon almustak bi dina way réer ña leen maanaam dana leen bugal de koy saq ne waxee na lawum ña leen ada am sala am lu wàcce param bukum param seen tu Muhammad ala loone astafirla ma dem naa yaa mi loo ñun nañu waaw xëy na seen dugal sama ngën dig ma baparama kon xeetu ci tëjee yàlla comme aw saa yi la ñu ne tey ñaanal ca bakkaat yi ñaanal te du loolu mu gën a mu gën a leen réew mi fii la dëgg saa kon maa yëg dana leen sant sama karasa xaw na la ñaan ñun xam ni way nekk lañ jëm jëkk seen su fekkee xéefar tey ñu ngi fexal yonent yàlla Muhammad xéefar yi leen jëkkoo itam ñoom doon ibnu Kanhaana taxawoon na de tabaxoon na am taax mu gudd dama ñetti kilomètre te def ci ñu dem asamaan defal yàlla moo jëkk a defar avion booba machine amul waaye moo defar avion waaw yasal ay tan waaw waaw rey ay nag leen ko jox leen ko xonte te tan mu ne day ñu ñëw mu xew ko ci ñu ci koñu waaw avion ba dal di samp waaw maaw ci digg avion ba waaw def ca suuxu yàpp waaw suufal leen fukki fan waaw dal di leen xeew rek ca gaal ga waaw ñu dal di naaw rek ñooy dab yi suuxu yàpp wañ seen ca maaw gaal ga yóbbuwaale gaal ga moom ñu dugg jë ñu dugg jë ne mooy xarajo yàlla Ibrahima de xanaa su reyee su reyee yàlla nag Ibrahima la du ko mën a bañ a toog yàlla jay ko mu naaw naaw naaw naaw ba dem ba ci waaw jaww jëppal bi nga xam ne moo nekk ci kaw nga xam ne daalam nga mënul di ko bëtt mu daal di ne ah defe naa tege naa yàlla Ibrahima ji de daal di fab kattam kat kat ka dem waaw yàlla jay ko kat ka kam aw jëm ba noppi yàlla delloo si kat ka ci moom buñ ko mu tax deret mu ne ñëw kam naa yàlla Ibrahima daal di wan ba ci waa maaw ba bu ko yàpp woo féete suuf waaw fan nga dellu naa waati jëm ci suuf ba wàcc seen moom waaw ca paaxam ma nga xam ne ca la naawee xoon comme wàcce nag dal di ñëpp teeru si ko mu ne leen jàmm naa yàlla Ibrahima yi dañ ñu ñëpp daje nag te sonu taaxam ma a atalaaw te jublu yàlla bu yaanoon torox teen ñoom xawaay di mu ci gëjë fan la ma nga wa sam daanu alee yi te daanu alee yi seen kaw sax su téegam taax ma ñun foofu yéen ci kër kaw seen ba ñoom ña nga jëf suuf taw ta dikëdé na isla soroona dafa mu toqew ci seen kande sama ak bañ di ko sargal te yàlla su ko def yeewal jibril rek mu def wér yi su tax ma rek ak mbagam camoyam tax mu buddee ci ca fa la mu weer dagg ñetti dagg daanu ca kaw ñu ñëwee ñëpp dee ba jeex waaw du mooy mbungóor waaye mbungóor moom yàlla ne liggéey fa lu gën a suuf la koy xalage yàlla xeebal yow rek yow ñëw dugg ci ñaari noppam yi ci daw rek bu ñu wax rek waaw yow yaa ngi yokku ci biir nopp yi rek mu fëgg fëgg fëgg fëgg yooyu doy génn ba dafay dóor dóor dóor ay noppam bu sonee oxoo ñu koy ñu koy dóoral ñu ko dóoral rek ndax taxawee ñu noppi yooyu noppi waxtu wu ne bu dégg ci ñu koy fëggal bopp bi rek waaw ndax yooyu te loolu xam ne ay fan nag mu tëra day mu ne daal sama bopp ci daal yàqu na sama bopp jëm tëggal ma beneen bopp waaw dindi ko posé ma beneen ñu ne ayca ñu tëggal ko bopp ñu sam rafet lool wan ko bu baax na mu ne baax na mu ne ayca teg leen bii da teg boobu dañ ko dajee rek la sotti yàlla mënoon na ko rey ba mu demee ci jaww ji waaw waaye yàlla daf ko jay parce que moo kaalaama ci waaw ak ci tanam bañ dellu si ak ci suufam jàmm waaw yàlla soo leen xalaat ci suuf rek su ma yomoon daa ma ni topp ci des tënk muslim dana toroxal leen yàlla wa yaqulu dana wax malaaka ya naa ay na surakaay yàlla dana wax yàlla ci laamu malaaka ya ne ay na surakaay ya dana way bokkaale sama def na ñaane comme suñu nekkoon ngeen saqoon lu ñu def man ci ñoom rek ñoom ci ñoom ala wax def na ñaane utul elma joxe ma leen xam-xam ñal ko ci yéen a trop te xam yow ma tey wa soo waaw ak ndugal loolu kàtt na war ci yooyu ñu rek dem utul ñaan leen di ñaawal nag naa tey tey la xeefat di trop su la ndokk yi noonu jage jote nag waaw lu jiitu la daal ndokk teel nag te dina ñaañu ko taw faawam dana faat leen al malaayikatu malaaka ya baal ñu am ci yéen ñu di way ay fan bokk dem faal taw tey sànni wala ma yëpp ni ba maaku naa ñëpp ni moom naa malu di jëf ñu sóorin bokkaale de xale a maam na laa naka yàlla dima yëpp moom dima samaroon dima tudd dana moom kon samaroon doon yëpp ko leen taw tokkuloo xaraf leen abwaaba jahannama um ci jahannama de xaali dina mbir ñu leen di way dee la bi sa ban na masalu sa kabina wax waaye ngay rëy li ñu rëy rëy yàlla ko gën a bañ na ne ku rëy lu yàlla suufeel la tey ñu rëy ñu yàlla daf leen di fang di jël yàlla def leen ay sanqalañ sanqalañ ñu xam ko ci rëyu su gën a rëy rek aw sanqalañ ngay doon bu péncam yàlla ngir yàlla wan ne leen wan leen ne duñ dara kibru takabur istikbaar bokkut istikbaar mooy réelu bi du dëgg istikbaar moom mooy réelu boo xam ne du dëgg takabur nag mën naa nekk takabur ci dëgg mën naa nekk takabur ci du dëgg moom balaa balaañ koo ŋàññ muy takabur bu du dëgg te la aji jee dëggoo takabur al mutakabir sadaqatu réelu ci kaw ci réelu loolu xaaw sadax la rek boobu mooy takabur ci xaq ci dëgg ak la yonent waxoon bu jaanata ca xare bu wut comme daagoo sumpli ko ci kanam yonent yonent la tur waxin wu yàlla bañ a ngi aw lu mooy nag ci ci taxawaay su moom baax na fi waa takaburu ci dëgg nag moom waa wañu dara torox lu itam torox lu lañu santaane waaye bëgguñ torox yàlla bëggu ci jullit ñu toroxal boppam torox lu nag mooy ci sa daraja waaw ci teg sa daraja daal fa nga xam ne gis na fa nga àgg loolu bu ko def yàlla dana la màggal ñu gis sa bopp nag fu weesu fa nga fa la yàlla jox ci daraja loolu kibru la su kibru nag su ca xam ne dañu naan madrasa fanqlay yàlla na ne rëy sama melo la sama lambaay la màgg sama taraxlaay la ñu yaa foofu toog man rek ma xam yow safara fan la ca safara te du ma la faale waxtu la tawaxe la si ña ña taxaw ragal nañu yàlla asaan sa lu wàcc na lu wasal na ko rabbukum borom seen alo ñu wax ne xayral wasal na mu aw ñu de di la si na ñaan na ñaa axna yooyu noonu ñu kaa si bi yaay ci kira àdduna non tan si kira sa daara la xira ci rek aljanna ay moo gën a àdduna de wala ne ma baax na ar lu mu tax ne rek way ragal ñu yàlla aljanna de dana do abdi na aljanna sax ya ko na ñu xal ko te ñu dana daw ñu taati ak tuuti na ru yoon yoon yoon te do ma ji nak la ñaan leen ci aljanna ma ya saawu na ñu sol ta xali ko jam boobu la fay ñu ci daaw rek te su ñu ñaanee sa taw faam dana faa dana malaayikatu malaaka ya tey dina mbir ñu ngi way tey kon danañu wax ñaan leen salaam mucc aleykum aji nekk la ci yéen te aljana lañu ne leen uddukuloo xaraf leen aljana te aljana xamaloon kon al yar suroona mu ngeen dugg ci ñoom yéefar yi daan sàkk yow ci dikk ñu leen ci malaayikatu malaaka ya ci njëf seen roxo aw yaati yéen ko gis am rabbi ko mbiram borom sa te saalika kam ñu def ñu ne ak kam na def ñu ne ala la defoon na si ñaanee nam xam yéen fay nekk lañ ko jëkk seen ñoom dañoo weddi woon seen yonante de commencé la moom laa waaye tooñu leen yàlla baalam leen ci lu dul bakkaar walakin lu nekk kaanu nekkoon nañu yasi mu ne di tooñ am sama ay bopp seen asaabaum te jot leen sa yaatu maa ni loolu waa way ñaaw yi dañuy jëfante waa xatawaa ci biir nga maakaanu lañ nekkoon yas tasima liggéey bi di ci noonu waxaala tawax les na ñaaño asrako bokkale nañu ñooñ màkka daw sa la darga sooba na yàlla maa daf naa jaamu dunu ñu doon yéen gis moom seen dara danañ wala baaw naa du jaagan ay bàyyi suñu wala xaram naa ramante nu ñu doon yéen gis moom seen dara yàlla ko soob loolu moom dëgg la ne duñ ko soobee gërëm na ko loolu moom du dëgg saalika kam na def yile la defoon la si ñaaña ñu xam ne way nekk lañ ca jikk seen rek qaala ala rusuli ndax war na yonent yi lal balaa ko dara jotal al mujjuna bu dee aji bi waxam paasmaan bu dee yéen nañu sukk dul matin ci yëpp xeet rasulan ci yónni te leen naka mbiram bi bu du laa weetu leen yàlla jaamu te tamit wootee leen taaxoota xërëm te mu mu aji nekk la ci ñoom xanaa da laa ko jubal na leen yàlla dañ gëm te mu mu aji nekk la ci ñoom man a xat war naa leen ci ñoom dalaa la turéese dañ bañ a gëm te ci dox leen yem nañ ma kay itam ci la ci suuf kon ko ko dem tefa na tane ñu def wéet ñu yonent yi de waaw solo mun mooy xala ko rek de ci taari ci dem kër nga yow yonent bi alaahu daawam si jubal seen te yàlla réeral ma leen te na laa naka yàlla daa yow daa defut jubal mun ñu gund ci muy réeral de ci yàlla réeral kenn mënu ko jubal de maa doon ngeen ñaa dem ñu naa seen way tere mu ko de wax sama génn nañ bilaay ci yàlla jaada ay maanin daram gën seen daay wasu laaw dekkat ya dekkal ci bi yàlla man yamoon su ko dana mu leere ñu ne ko dee dootu dekki ale aan am faadal dana ko faadal dee na ko yàlla dale ale waral boppam akam dana ma dëggal ak dëggal de walaa ci na fi nag kon am nañu doole yow ko dafa ñu koy yëngu ñoom ñu doon ñu leen di yàlla yàq ci loolu dañu mën ci suuf ba yàlla ma li ma am te na ñaani ko rek nañu sama sama ko ñu taatu dina doole la ci na ma xaw naa ma kay wax ñu ci ci la ñu daal na dem na mënan ko na ko bu ñu waxal la ñaan ko ko nekkal rek ko sama ko mu nekk yàlla bu bëggee amal daf koy wax nekkal rek mu nekk wala ci na ñaani haajaro gàddaay nañu ci laay ci yàlla min baadi ma sulimu danaa bu loreef leen te mooy yonente saabaam yi waa Makka lor nañ leen ñu génn gàddaay dem Medina danu bawee nangu walaay dana nu wàcce leen ci ñu yaag ci àdduna asama seen turkudi aji rafet yàlla dana leen wàcce kër gu rafet mooy Medina wala ajurul axirati te walaay yoolam alaxira ak waru mu gën a màggalaw kaana doon nekk nañ yàlla moo di xam de la dina ñaaña sabaroo muñ nañu lor yi far ya fa gàddaay ñu bëgg a kawal diine yàlla ala rabbihim waaye tawakkaluna te danañu ci ko di ko ala rabbihim ci borom seen dañu wàccu ci yàlla wàcc seen xaram yëpp ca Makka yàlla dana leen wërsëgal suñu jot ñu doon comme arba naanu nga yóbbu ñu xam ne ci dañ dëkk sax daa di jàllan dara góor yow waa ñoom jër na way leen jëm ci ñoom parce que loolu laaj leen ala dikk nañ kaw rek liñ jéem suñ ko nekk yàlla waaw ci bay naa fi ci kawteer ko tubbu ak ci téere ansa naa tan wàcce yeeg jëm ci yàlla yonent bi ci kara alquran le alquran itam ñu wàcce ko ci kaw yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam su fay nañ da nga digal naa si ñaar yi maa ngi la wax tay jëm ci ñoom yonent nag moom ñu ci alquran le lépp lu mu xalaalal ak lépp lu mu xaraamal daal la ko ñoom jot ko ko ñu tambe dafa am na ndax dafa xoolu ala si na ñaaña ma taro fexe nañu si yaa ci taxay ban ci yeneen suba te daaru nadwa am wax dafa laaw bu ñu waral yàlla bi ñoom ndax la ci suuf nañu doon daje ca nadwa ci sa xel yonent bi waaw dañoo xamul ba su neexoon yàlla mu def leen nam defoon xaaroona aw yaa ci yow ñu ko dikkale ñu ko dikkale na ala saabu mbugal mu nay suuf waaw laa soxla su foofu topp ci mu gisee nekkal de aw yaa ko sorum ci mu xaral leen si taxal ñu ci dox seen wala tukki ñu tukki di dem tukki réew yàlla xaral leen ci dem tukki réew maam ngeen ñoom du ñu ñu way faar yàlla rek aw yaa ko sorum ci mu xaral leen ala taxaw buñ ci wàññi wala wala mu leen wàññi seen dem kenn kenn ko ñu jaar seen rabatu naka borom seen la rawul ay ñu wéet la mu ray mu ay yaram la mu de aw lam yaraw tax dañoo xamut ila tax dañoo gisut ila ma xalaqa laaw jëm jële bi na ko yàlla mu seen ila la mu ker la xanaa dañoo seetlu ker yi nga xam ne moom la yàlla bind te ko yow dana jaayu si daal karam am yan yi ci wàllu nga joor waaye léegi xam mooy léegi sa leer bi waaw du sax ci ñenn ñi ma ngay jëm ndey joor di jëm càmmoñ di jëm tànk di jëm sow di jëgal nit ñi ñëw si jóomi laay ñaar yàlla sakaleer yi te ñoom dañuy si jóotal yàlla bu borom bañee moom sakaleer bi mu nangu te doo sañ a bañ boobu ñoom daafara na way tax la ñu ñaar yàlla de way si doo si jóot laay ñaar yàlla ak sama wàcc dana ci asamaan juróom yaar commencé la leen nekk ci suñu juróom yaar min daa bati jaaraam ak ñuy tëdd wala malaayikatu al malaaka yi yëpp danañ ci jóom ñaar yàlla boobu ñoom malaaka daa sag loolu réeru ci ñi malaaka ñoom duñu réeru jaamu yàlla te xaafoona danañ ragal rabbahum borom seen ñun toog ñu daa ñu kawe leen wa yafaloon danañu def maa ngi waroon la def na digal leen ko de wa qaala laa wax na yàlla laa tax bu leen jàpp ilaahi yaar yàlla yi dañu leen yaar dama woon nag moom daa woon waaye ñu ci jël de bu leen jaamu yaar yàlla yàlla kenn rek la amul beneen de day yaaye man yàlla fara boo nii ragal leen ma de wala woon ñaan yàlla maa fi sama waati ne ci asmaan juróom yaar wala rek ci juróom yaar wala woon ñaan ko ci ñu topp waa si ban mbir mu aaji sax xala sa sax woon da ngeen ragal xaare laay ku yàlla comment bi kum tal nekk ci yéen di ñaamat yi ci xéwal ci lay mooy laa masakum parce que def def na leen pour am ñàkk jàngoro parce que keroog da ngeen jàngoo di leen gëm ci moom yàlla de yàlla rek ngeen koy jooyee ngeen ko jooyee keneen mooy laa kasafa parce que dem mu ngi nangu sural war am pour wëri si leen daa am la fekk fere pour pure ñu pour fiyee ci ko dañ ko xale daa bi ñu borom benn yaa ko nañu yàgg maa danaa am keroog jox leen ci teewal sama taw yóbbul leen jaamu keneen parce que fa taala moom am ñoo xam ne koy yàlla danañu def ci maa laa yàlla mën a ñaan lañu xamu mooy yàlla am na ñu jëriñ du la na si ban képp ci maara foog naa am ci lañu war a leen ci seen mbéy seen utilisé te laay ngeen yàlla na walaay def na laaj leen ah la si nekkoon bay na daan jox laaj na yàlla ak kon ko seen na yàlla doon ci jël na am yàlla kay saa bu fekkee dina am doom jël war a am doom ci yéen am na solo sala ko doom ko ñaareel ñoom ay solo lañ ko doom ci bëgg lañ bëgg ñoom ñoo am doom yi ñoom yàlla ni may nag mooy am doom yi may do am ci gëna mu gëdal te abu sa te dëgg def na aadu yi ak ñoom ci ñoom saa ci doon ci wala andu ko ñu wax kanam mu ko tan ci ko tabe ak am na kay ñu ko jawal ni na lu ma am ci ñoom ba dem doom ñëpp kanam rek waaw yaakaar mu doon góor rek ko wata moom ko ci mu aji ka sama ñaar te wara te mu ci ko lu ñaan xam ci ñu ko tay yëmal du ñu wara tak mu ngal naqar ci koy ma abu sa ak ñaari la dëgg def na ko biir ak moom de ay ci ko ba ngay jàng jàng nag tax dana mu jàpp ko ci ñun ak ray xaaral loolu ànd ak toog ak ñoom yaaram dañoo bañ a ndaw jigéen ñu doom bërëb bi yëpp ñu leen ñu ne tax dañuy ne fekk doom bi bañ ko rey di ko tooxal am yàgg su xam ne mu mëdd ko fi turam gis ñu dañuy def fax rek ah su ko ci noonu mu dee benn yoon laa dëgg ah bon na maa mën a àtte seen biir ñoo bonal àtte ci biir ma taam jabar bëgg jabar ba noppi ko jub doom bi yàlla ko ñu ci lañu ñaan la yam ñu mu ila kala kala masalu tawi kala bu bonde ko jaay ñu na yàlla masalu ci ala la wari ay soore mooy la ilaha illallah o moom sa ci ma di masura sa ci ma di wala lu waxatu la doon te dama halak yàlla na sa ñu ngi ci ñu musa ci tooñ seen ma tara kare sa ci mu ala ha ci ko fu mu da bat ñu ndew de sa kon ku tooñ rek yàlla halak la kon kenn du fi def de wala ci ñu na ci wax ro ñu ci la ci ñu ko ci ci da ja dem bi tra ñu ci la sa ñu ci ko sa sa waaye daal danañ def li daal ñu ne yàlla maa ngi keroog lañ ci ñoom doom jigéen lañ bañ ñu ne yàlla doom jigéen la am ñoom kenn bëgg ci morom ci nekk da ngaa bëgg a wéetoo sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkal ñoom askan lañ bëgg waa bëgg a wéetoo sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkal ñoom askan lañ bëgg waaw xanaa ñu ne yàlla moom waaw cangam gi du ko wéetoo moo koy moom kenn bëgg ci yéen seen daal ñu toroxal ko ñu toroxal yeneen ci yàlla yi ba tasi ko dana wax wax alsinatuma ay lamu seen alkasi bay naar ana dafum nag aji nekk rek ñu leen alus na aljanna ñu def yooyu dana tene ne daañu am aljanna daa jarama dëgg ne dafum nag ñaan na leen naara soxla de paa noonu nag ñoom paa musu toona way lakk lañu leen paa wala musu toona way jël bi lañu daayale walaay ñëw yàlla après xam naa ñun dañoo dañoo ni ilaa umuri jëm ci xeet ñun xam ne ci gën njëkk sa ay yonant parce que yéen a rafetal doom ñu leen saytaan yi ñu amaale wu jëf seen ban yëpp boo moom wali ñu naa ji ne way ni seen de al yawma tey ci àdduna wala um war na ci ñoom asaabu mbugal Aliou daa ji métti jaar après rek sama am solo noonu de rasul naa rek ci yow Muhammad te ku taal alquran yaa ngi ci bañ na nga rek na nga bidal loolu mooy am leen waaw ñoom nit ñi alla si yàlla waaw espresso espresso wute nañu seen ci moom de ñu may nga bidal leen da nga xam ne ñu ca doon wute boobu dem sa dim jub rahmatan te yow maanaam xam ñu raw ñu yow lañu gën ñu gëm wallaahu yàlla an sala wàcc na mi ne sama bi jaar sama maanaam taw waaye aatan dundal bi jëmam la rasul ba dama taa ci gannaaw woo na bi salika naka aji naka lañ ci doon laa yaatan tegtal de xam ñu ñu yëpp moom la ñu dëgg ñu dëgg dëgg tegtal way na lakum naka aji naka lañ ñaan leen ci la maam ci jidi kat la am ratam xaram nas ko ñu dañu nandal leen ñu ma ko butoon yi la nekk ci jidam min ay salkin ci jërte ci bëri ba tamit nag garab dafa na man soow xaalis mu daal di sell de yàlla ni mën a fandal soow ñu bàyyi ko jur gi gàtt ba ci jërte ci bëri sa ak garab ja kala soow ma jiddoo doo gis meew mukk nga gis dara ci ci bëri waxte wala nga gis dara ci dara waxte am ngeen ne que man loolu kenn la tawee nam te mooy jaamu de saa yi xam ngeen maa ji neex itam ci saa yi ñu way naan ni xam ngeen ne neew neex na de yéen ñu koy naan nag moom naanu comme samaraati ma tey nii yàlla bind na ci nañ ma tam tàndal ma wala naa naa wala naa loo ci xenat te tax dina da ngeen jàpp ñu tukkee ci moom sakkaram sàngara ñu bind leen ay xenat ak tàndal ma ngeen ci sakk sàngara di tamaan wari xam nga sa xasa mu daa jirafe ina fi daalika naka ji nekk la ci doon laa yàpp sëkkal te xam ñu daal ñu yàq la ñu danañ sëkkal sa lépp waaw xaa woy na waaw xee yàq yoon na rabbu ka borom sa ila naa li jëm ci yemb am na kam bi rek bët sax yi jii jàppal ñu nag di baali ci doon jëm doon ay néeg ñu ne sa jëre ak ci garab yi bu ma yaay sona ak kenn danañ ma xaaj ko ci mboobale yàlla festival na yambal mu dugg ci rab yi di ko def yambal di jabi def lem ak ci garab yi ak ci booba yi ñu leen di xajal ma ku ni sapp lekkal yow yambal ñu ku ni tamaraat yi ci xet na ñi parce que ci xarafal ci rab yi ci yow borom sa te farluwaay ba su leen di mundi sa dañu ànd de yaa yaxru ñu gën a génn ñu di toone aa su ko ci jiidi yamb ya sala bu nag naan gu neex mooy lem mu xalifun ak yiitu la alwaan way melam de ñu aji nekk la ci lem ci saawum saafaram li naa fi ñaan ñi ci mboolem jàngoro yi de waaw ina fi zalika naka aji nekk la ci loolu laa tan tegtal te xamu ñu raw yëpp xam nañu danañ xam de walaa yàlla xalaq ku bind leen te ñëpp ñu xam ci dara mooy tawa faakum xap dana mu faat leen ak jox ak ay dictéem ko min kuma aji nekk la ci ñaan seen kon rabbi ko defal delloo ko ila arta yu umri su gën ci gën ca dara di dund mooy mu màggat ba koo soor danaat li ka laa adama mooy mu xam ci adaya ñun te gannaaw xam seen dara rek mooy mu màggat ba dootu xam dara mooy naag waaw ku waxtu alquran loolu ko daan de dina laa naka yàlla alimu aji xam nañu adina aji asamaan rek wala yàlla fa kala gërëm ñu baax ak ñu gën a rabaa bu ñu gën a fi ci wërsëg yàlla ci bëri wërsëg te gërëm bëri gërëm gërëm leen di gën ñu ñaam lu bëri ñaam lu tuuti ñaam wërsëg ci seen rek ñaam wërsëg ci bitim réew rek sama ali la sama la fi na yéen ñaana pour gënoo gën a def leen bi rabbi yëpp ñu aji delloo wërsëg seen waaw wala la moom ay maam nga jox seen waaye ñëpp wërsëg mën ñu añ ci ñu wërsëg dara xam nga sax mën nga wàññi dara ci wërsëgu jaamam kon ñoom ñun moom ñaar ñëwee moom sawa ngoxe moo lañ ci ci wasa bi ay affaire yi doona ndax danañu weddi bi ne ma ci laay teewlo yàlla walaaw yàlla yàlla bi ñoom lakkum ñëwee ñu am fu ci kon ci ci bakkan seen aswaajuna ay jabar yàlla bi la leen seen jabar ñu bàyyi ko ci yéen ndax a xawaa ci la salwet ak ca mooy aadama dafa yàlla bindee muy xaaj ci aadama ba noppi nekk jabaram mboolem jabar yi ci des nag waaw ci toppante man ni góor jigéen ñi rek lañ bàyyi ko rek ko yàlla bi ñoom lakkum ñëwee ñu aswaajuna ci ci jabar seen bamina doomi góor afada seen ak doomi doom de su bindee leen ay doom ak i sët wala sax mu wërsëgal nangu leen ne say baati way tey après yow ñu ne danañu gëm ci kaatu ci këram ba yegg konoon dañuy weddi ñu ne ma ci laaj xéewal yàlla ñoom yegg konoon danañ weddi ko ba yàlla dinañ danañ jàmm loolu laay dund yàlla maanaam li ko doon moom ci mu doon mu yàlla ñu kon wërsëg yëpp ma wax ci asamaan juróom yàlla wala ci juróom yàlla seen dara wala sa kema xatan suñu dara wala sabri boobu leen def laa ñu yàlla lam saala ay ndéef de bu leen yebal yàlla di ko waxal bokkaale bu mu xamut ne laa naka yàlla yàlla mu dara mu xam ne xamul bokkaale wantum seen laa dara mën a xamu leen bokkaaleem de saraba laaraw def na yàlla masalan de ab tan jaam xam nga kan bëriwul moom daa xadro xatan ci maal asee ci dara ngir ñàkk a moomoom ba man rasak naaw ak gar sanu wërsëgal ko mi naa tukki ci def sanu wërsëg asanu wu daa ji rafet kooku moom yéen si ko gën a mu dundale ñu mu ci wërsëg wa sirran ci mbir moom ko jaxaran ak ci lu feeñ ales tawa ndax dana ñemoom jaam bu sañ nga soppandiku ak gortu moom ak yàlla soppandiku niroo nañ waaw ku jëkk ci mooy xërëm sa ñaareel ci mooy yàlla de alhamdulilah ak jant yonante laa ñu ñeema yàlla albay dak sorom gën jëbbëri seen la yàlla mën a xamuñ de wadara ba laaw def na yàlla masalan leer waji lay ni ñaari gaay aadu ma kenn ci ñoom ak samul aji riilamu daa du doxatan ci ma la sey ci dara mën da déggal mën da déggale woowu moom kanun aji gis la ma la ma laaw ci sangam sangam waaw moo koy gàddu fii jëmaand ak moom di ko gàttar gàttare ay na ma wa jëw fuu jëmani ko suñu soppali ko daayaati di jëkkëma bi xayran ci hu suñ ko mën a jëmale du ko fajal jenn haajo loolu mooy xéefar alestay ndax dana mu xemoo wala moom moo man yaamuro ak dana mu digle ilaa bi ci maano boo wasa moom ala saas ma jinaka la ci yoon sax mu lay jib kooku mooy ku jëkk gi mooy xéefar ko ñaareel gi mooy jili de way laa jinaka la ñaan yàlla xay bu samawaati fadul asamaan juróom yaar wala des suñu juróom yaar ba ma amru saati yëg bi dem de saytu laa kalamir basari bare kam jënd ku seet la aw itam moom aqrab moo gën a jege de ndax suñ rek la mu daal di taxaw ina laa naka yàlla xadima yaatu na maalaatu li ngeen ci lépp rek de walaa yàlla axrajakum gëne na mu leen ñu toonu ma afikum ngeen ci ci biir ngay seen daa taale mu na xamul leen seen dara doom dafay judd waaw xamul dara noppam du dégg bëtam du gis xelam du yàqee yàlla ko jaala tam def lakkum ñee leen sama déggaloo wala saara ak gis loo wala fu dataaki xol daa lakum bu reen gis wala ngeen sam si bëggam alam yaraw ndax gisuñu ila tayri jëm ci yanaaw mu saxaraat yi ñu tàggat ci jawi sama yi ci jawi asamaan xanaa gis leen ci ginnaaw ci jaww ji nekkuñ ca asamaan nekkuñ ci suuf xanaa ne ci diggante bi maanaam ci suuna dee di jàpp leen ci la laaw ndara kattan yàlla de xam nga ne kooku dara tey ko lu ma yàlla su dugg ak gëm loolu doy dina fi daalika naka ñu naka la juróom laa atim tegtal taxaw ñeel aw yow ñu mën nañu dundal walaa yàlla jaala bi nam lakum ne leen ñu boo fitum ci ci nekk seen sakkanal waaw ay dëkkuwaay de yàlla sakkanal leen dëkkuwaay ji ngeen ne wa jaala bi nam lakum ne leen ñu dundal di la naami ci ko ci jibi waaw jariñ jibi tëb yoroo ay néeg taxisunaha da ngeen xoyof na ko yow ma saanikum te ba sa tukki seen wa yow ma iqaamatikum ak ci bésab fax seen de wa min asrafiha yàlla bind ci suufam wa albaariha ak i wabaram wa asnaariha ak i kawaram asaasan ay yére de lu ci waa takkiin ak mbàjj yi ngeen di sagoo wa mataan ak yëbbal ilaahi ñu bañ a jeex ak gis seen ba ba ca ak rappam de wallaahu yàlla yàlla bind na mu lakum ñu leen ñu maa xalaat ak lam bind ci daara na ay ker yàlla bind na leen ceri garab yi ak ceri mbóor yi ak ceri muur yi ba jaala bind na mu lakum ñu leen jibaar yi jóge ci bët ak maanaam para bi mujj waay ba jaala bind na mu lakum ñu leen fara bi lay mujj saqitum dana ñu leen alxarra tàngaay ak ab sedd ba fara bi la ak ci mujj saqitum dana ñu leen baasatum ay xaraseen kasaalika kan bind ci yàlla bind def yooyu bisim ne leen matal ñaamata teewalam aleykum ci yéen de yàlla su booyee muslimuun ngeen jëbbru ne ren tawalla waaye dem dëgg nañu to na maa alayka naka dana war la albalaaxu njofla ñu jëru bada aji bidde yaari sama nga dana xam ñaamata laaye teewalam yàlla ñu ci rona akat ñu yebbi kare wa aksaruhum gëgg bëri seen kaafira ñu wet na ñu al kaafira ñu ñu wet de astur jàngatay yowma namasu bés ba dana dakkal ñu seen ummatin ku dëgg yëpp xeer day dal aji seede te mooy jàngatal ba nga xamee ne xeet wu nekk dañ dekkal seen yonent mu ñu woon leen seere rek ma laa yoo sama topp defu digal léegi nag ñoo ñaani soxla wet yi wala ñu jëm ñoom ñu sax tabal def delloo leen àddina way saara dem gis na la dina ñaani sara moo tooñ nañu alan saa ba mbugal ma tey coob yàlla nag suñu bëri nañ cak waa safara wala yoo xam mu deful xayafal anu murin ci leen de wala ñu jëm ñoom ñun sara def yi xelal de way saara dem gis na la dina ñaani sara too bakkaal ñu sara kaa mu ayala seen soo xam ne ñu bëri gis nañ kërëb yéen doon jaamu na waaw ñu wax rabbana yow borom suñu aw laa ñu de surakaw naa ñoo di yàlla suñu te si nañaa ñu ku naa nekkoon nga doon di jaamu leen de suñu yàlla yaa ngi kër yàlla ñu ngi la doon jaamu jàppal faal xawi sànni faal xaw tañ sànni leen jëm ci moom alxawra wax ja te leen yee daal di leen tontu de innakum na